ci barab bi gën sell mu di kaaba gi na gërëm naa leen sant naa leen maa leen ñaanal yàlla bu baax acca teew leen seen soxla yépp na ngeen ko denc na nekk souvenir ci yéen nuyul ma xale yépp waxal Aïcha Aïcha Fat ya Haydara kër gi ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ñaanal yàlla fii ci ci kaaba gi yàlla yàlla leen di leen di sonn ci man di ma liggéeyal te yàlla rek tax maa ngi koy seddaloo yàlla fi seede gën a rafetee fii ci kaaba gi di leen wax ne gërëm naa leen sant naa leen yéen itam na ngeen ma ñaanal yàlla bu baax maa ngi ñaanal sama njaboot gi yëpp يس الله أكبر سبقنا ناصر أخلاقنا إلى صراط المستقيم على هادي حق قدر بغداد العصير اللهم صل على والسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين جف Thank you. どうも。 ni ko commencé woon la ko pare dañ ko mottalee noonu rek